aquí y

Pour qu'il s'inquiète quelque tu veux bien, pour qu'elle se fait des masses. Y'a un samedi, maman moi demande. It's all about, it's all salam. Assalamu alaikum rahmatulah taala barkatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu wér di leen wax mbaa jàmm ngeen yendoo yàlla leen yàlla dafal jàmm di wax encore une fois inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, ñi nga xam ni ñoo loru ci accident bi yal na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana yal na leen yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe te àtte leen ci yërmandeem duñ ne nag dee kenn mënu ko arrêté ndax bës bu né ñi né bokkan bu ñam dundul dina ñam dé bës bu né ñu né ku ci nekk rek bu sa app joté nga dem wayé war nañ mëna a farlu ci suñu bop ba yenn ni mun na ñàkk ab réew duñ ko défar mu nekk réew boo xam ni chaque semaine ñu ne inna lillahi inna ilayhi rajiwun chaque semaine dëkk yëpp ne inna lillahi inna ilayhi rajiwun chaque semaine ñëpp ne di jooy kii naan sama bàjj naa fa dee kii naan sama tànt kii naan sama maam kii naan sama nijaay ki naan sama papa loolu yaakaar naa ni lu mun a ñàkk la mun na ñàkk nag ci kaw ne naa leen dëkku Amérique Europe moo gën a ngandu fuuf Sénégal maanaam dëkk yi nekk bëri na dëkk yoo xam ni tey France mat na juróom juróomi yoon Sénégal la nekk ci oto xaaj xaajaat bi nekkul Sénégal naan Canada mat na dix fois Sénégal la fi nekk ci doomu aadama xajul Sénégal la fi nekk ci oto yit xajul Sénégal loolu bu ñu ko waxee Amérique et cetera et cetera bi nga xam ni ñoom sax ay état yi dajaloo la waaye tey ji état New York bi rek état New York bi rek li fa ne ci euh, oto li fa ci doomu aadama boo ko xëppoon Sénégal duñ fa am place ndax bëri waaye New York day nekkuñu chaque semaine naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Canada ak li bi ëpp oto bëri oto ba oto yi sax fii la ñuy jóge di dem dëkkuñu ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc loolu rek war na mën a tax ku ci nekk xam ni problème bi du yàlla ñun ñii la ñun sénégalais ñun ñoo am problème mu civisme lu tax nag ñoo am problème civisme mooy benn sénégalais munul am civisme bu dee amul patriotisme parce que civisme ci benn élément wu patriotisme la bokk maanaam patriotisme ben chaîne civisme maillon kese la ci donc ñun avant de dire que nous sommes patriotes lu gëna ndaw ci ay éléments wu patriotisme muy civisme sax mënuñu ko am parce que dans le patriotisme civisme ci la nek ay valeurs cardinales ci la nek ay vertu ci la nek ay euh ko xamni dafa ay autodétermination ci la nek euh, ay gëm sa bop ci leen etc etc donc loolu lu ci gën ndaw mooy civisme C'est notre plus grand problème leneen li il faut que nous xam nañ ni Sénégal doit changer comme nous ma ko waxee lépp ngay changer Sénégal amul problème sénégalais yi ñoo am problème benn doomu aadama mënul ñëw Sénégal. ne dama koy defar bàyyi sénégalais yi loolu mënul ne kii tenir discours bi discours bu sénégalais ñi ma wut dégg kooku mooy defar Sénégal mooy kuy ñëw ne leen ah fas yéene naa leen karawaase de karawaase yoo xam ni ci saayir ak ci baatin duma leen baal dinaa leen topp dinaa leen daqe dinaa leen duuti duut faaj dinaa leen wili pande dinaa leen toroxal ba nga ne tot boo leen nekkul nit fii bàyyi kenn gënul bàyyi kenn Il kenn gënu fi ndeyu kenn seul le travail paye ku tenir discours bob, leader bu tenir discours bob, kooku non moy kuy defar Sénégal bu leader bu ici on ne considère point l'homme d'après ses origines mais d'après son travail tes parents ont beau être de puissants seigneurs mais si tu ne fais pas ton devoir tu n'échapperas pas à la bastonnade Vois-tu, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il, te dépassera. Tu deviendras son serviteur. Travaille, apprends, prive-toi de sommeil, ne te soucie pas de ton corps, habitue-toi aux difficultés de la vie. Joggle, ñafel, faytal, pas ton lot. Égalité de chance. leader bi discours Sénégal. mais kuy ñëw di naxasaale ak sénégalais yi du defar Sénégal kuy ñëw ne dafay yërëm sénégalais yi du defar Sénégal waaye ku taxaw déterminé wu gar ci bakkanam ne da ngeen may rey mbaam ma rey leen waaye di ngeen def cocc lu ma defar doo leen ko yàq di ngeen jaar yoon di ngeen bëgg seen réew par la force même boo leen ko bëggul ma damm seen loxo ngir ngeen bëgg seen réew lii ab bool la boo xam ni. wala ab pat la boo xam ni ñëpp ci war a def seen loxo pour ñu mën a tabax Sénégal mais tant que intérêt personnel mi ngi reñee réew mi di dox te loolu mooy problème Sénégal Sénégal boo fa ñëwee di wax waxu civisme développement di wax waxu patriotisme da nga yaay gën a torox Sénégal parce que Sénégal am nañ lépp sauf patriotisme am nañ lépp sauf civisme boo fa demoon di ko dund da ngay mel ku nek jaxanama nit yi comme ay mala les gens traversent les routes comme pas possible parc Sénégal moy parc géologique bu Sénégal ni sénégalais yi di doxé la mala yi di doxé sénégalais bi ni lay doxé ab xaj di dox ci wétam xaj bu amul boom sénégalais bi ni lay togué ab muus bu amul boom ñëw tok ci wétam sénégalais bi nii lay doxee ab mbaam bu ko romb traversé sénégalais nii lay doxee ab gangu xar ñëw romb ko sénégalais bi nii lay doxee ab mbaam xuux ñëw romb ko sénégalais nii lay doxee ab mbaam sëf ñëw romb ko sénégalais nii lay doxee ab fas mab bu ñëw romb ko sénégalais nii lay doxee ak gàngooru nag ñëw romb ko kon loolu bu nit taxawee la gëmloo ni lii dëkk la ne ko waxoo dëgg ne ko ay kàcc la ne ko ay fen la Sénégal du dëkk Sénégal ab zoo la maanaam ab parc la ni nit yi di doxee noonu la mala yi di doxee noonu la oto yi di doxee te oto yi ay nitoo leen di dawal ni nit yi reewee la oto yi reewee ni nit yi di yuuxoo noonu la oto yi di yuuxoo noonu la oto di corne mbedd mi di riir ñëpp di yuuxu oto yi di corné oto yi di yuuxu nit yi di traversé mbaam yi traversé xaj yi traversé golo yi traversé jinax yi traversé kaña yi traversé donc foofu moom c'est le sëmbaxloo c'est le sëmbaxloo loolu mooy problème mu Sénégal te ngeen xam ni njiit yi ñu jiite ak ñun ñoo yem képp réew mi rek a fi ne wala waa ji jiitu la ngay profitoo waaye mais ñun ñëpp nuroo ñi ci tane sax yàlla da leen dimbale rek ñu góorgóorlu ci seen bopp pour mën koo mun a tane seeni maas parce que accident yi c'est très facile gis nga ñàkk nit bu responsable mooy gis ab problème muy wax di n'importe quoi mais comment on veut développer un pays bu fekkee ni bu amé accident peuple population bobu di woné ni ñom ay patriotes lañ wala ay citoyens d'honneur lañ di taxaw nan ay affaireu démon la ay affaireu yu la ay affaireu sacrifice la mais mais yaakar ngeen ni doomu doomu adama bobu di xalat ay nit yu dé ci accident mu gën nan ay sacrifice la nit bobu yaakar ngeen ni koko amna manam ab njiit bu ko mun a defar yaakaar ngeen ni am na njiit bu mun a defar ay doomu aadama yoo xam ni ab accident bu am semaine bi amaat tey ñu ne ay démon ñoo tasaaroo ay jinne ñoo tasaaroo kon ñun Sénégal daal ñun ay démon yu bon lañ yor Amérique ñoom ay démon yu baax lañ yor ñoom oto yi sax dañu bëgg a këpp seen démon yi taxaw taxawalaat seen oto yi ñu bañ a këpp Canada ay démo yu baax lañ yor ay démo yu jullite oto yi di bëgg a këppu seen démo yi delloowaat ko oto yi di këpp Sénégal ñoom ak li ñuy jaaw yàlla yëpp ay démo yu bon lañ yor démo yoo xam ne dañuy taxaw ci tali di këpp oto yi di di biral oto yi di mbëkkante ñoom ñuy ñu leen di diri di leen kon ñun Sénégal ñun ay démo yu bon lañ yor kon daal war nañ góor yéen ñi yor démo yu bon yi ngeen woo ñu ñu ñu ndëppal seen démo yi comme yéen seen démo yi ay raykatu nit lañ amu leen démo yu baax chaque semaine démo yi rey leen cinquante reyaat vingt cinq reyaat semaine bii di ñëw mu reyaat quarante kon yéen ndëppal leen seen démo yi te xam ne démo yu bon ngeen yor ay démo yu yées ngeen yor boo leen mënee rocc rocc wala rëcc foofu rëcc leen bàyyi fa démo yi te xam ne amu leen yu baax comme yéen seen demoo yi rey rek lañ xam ñoom xamu leen démo yu sauvé kon démo yu sauvé ñi ngi fii démo yu sauvé ñi ngi Amérique démo yu sauvé ñi ngi Europe kon démo yu bon yi reyaate yi ñoom ñoo dajaloo Sénégal di leen rey ku buggul dee nag dawal génn foofu comme ça démons yu dëmm yu nekk foofu noonu démons yi nga xam ne ñoom deret rek la ñuy dundee ak yàpp boo leen bëggee rëcc démons yi bañ leen lekk génn leen foofu. mais nag démons yoo xam ne lañ ay démons yoo xam ne daal ñoom bëgg nañ tali daal démons yoo xam ne ñoom ci tali rek la ñuy toog di xaar gaa yi. démons yoo xam ne ñoom comme ñoom nee nañ affaire bi affaire de démon la kon accident yi ay démon la ay affaire de sacrifice la kon daal kon seen démons yi daal ñoom ñoom dañuy yeew suba ba guddi taxaw ci seen tali di xaar gaa yi di romb ñu leen di mbëkk ñuy dee di leen mbëkk mais li ñuy foo ci seen oto yi oto bu jógee fee ñu ne ko ay camion kaay bum dee ngeen ñaata 45 demoo yi acca <laughs> naan leen deret bi lekk leen yàpp bi dem toogiwaat ñuy continuer noonu comme yéen seen demoo yi noonu la daal seen demoo yi ci tali yi lañ toog di xaar di yàpp gars yi di mbëkkal ay camion ak ay car rapide ak ay njege njaay ñëpp di faatu <laughs> demoo yi mel noonu ngeen loolu ngeen ma wax de lu maa ko wax de yéen a ko wax parce que chaque semaine accident au lieu ngeen xool diagnostiqué ko ngeen toog lu day di population bu ñu naan ñoom nee nañ dañoo réfléchir di toog di wax ay waxu démon ay waxu sacrifice ma ci dégg nga non sacrifice Macky Sall yi non ay demoo la quoi daal ay démon routier ngeen yor réew ma yàqu na bon na laisser-aller ba merde bi indiscipline bi ba pare nag boole ci ñu am ay démon routier yoo xam ne ñoom fi tali rek la ñuy toog di mbëkkal ay camion mbëkkal ay oto di mbëkkal ay car rapide ak njaga njaay di mbëkkal ay <laughs> et cetera et cetera d' demoo yu mel noonu ngeen yor kon demoo yi newoon Tamba bu yoonu Tamba bi ñoom ñoo dawat demaat yoonu Louga après ñoom ñoom daal Macky Sall lañ topp ko kon Macky Sall lañ topp daal fu mu dem ba ñibbi rek après ñoom ñooy mais xam nga population buy xalaatee noonu ay nit yi xalaatee noonu kan moo am fit ku yàlla bind mu ñëw Sénégal xool nit yi di xalaatee noonu mu taxaw dëgër fit ne moom mun na leen defar. bu doon tubaab yi heure yi ñu ngi ne ñu ngi koy diagnostiqué kon li amoon du amaat taf taf ñu commencé teg ay règle commencé bind tak tak oto bi fii la jaar oto bi naan nii problème problème pëne la problème kon instant yi xoolal diagnostiqué nañ ko ba teg problème mu pëne la pëne bu usé la xool ñoom noonu la ñuy def lu leen dal du leen dalaat lu leen dal du leen dalaat gëmuñu demoo moo tax yàlla dimbale leen. gëmuñu ay waxu demoo moo rey laa bëgg a wax foofu gëmuñu ay waxu demoo moo këpp oto demoo moo mbëkkal ñun dañu am problème mu bopp ñun dañu am problème mu mental te chaque jour moo wax ko lu day ni Sénégal ay accident yoo xam ni ay nit yoo xam ni nalawoo bëgg a ràmbu ab oto ne danga koy dawal nalawoo wala nga tux sab yàmba ba def tag di dawal wala nga naan sab sàngara di dawal wala nga réew loolu di dawal wala nga ëppal di dawal wala nga wala nga wala nga wala nga wala nga ay nalaw di dawal yàkkamti yegg di dawal sacrifier population ba ñëw taxaw waa dëkk ba am ñu deele loolu bëri ñu war a xalaat surchargé oto ba ak leneen ak leneen parce que dafa bëri surtout surchargement yi problème mu visite technique bi problème mu permis problème mu këyit et cetera et cetera ñu war a taxaw xool ñuy wax ay waxu ay démon ay sacrifice gis nga man gëm naa xeex mais man xeexu fen ànduma ci ban demoo ci yéen moo nekk demoo ba xam ni Macky Sall moo am ay démo ay démo yi rayaate sacrifice la kan la kan ci yéen mais nan la nit mën a dëgëree fi toog même boo bañee Macky Sall man dama gëm ni nit même noo ko bañ bañ bañ bu ko fenal parce que fen kenn du ko xeexee dafa am ñoo xam ni ñoom ci seen gàmbale ñoom dañuy xeexee ay fen mais man dama gëm ni fen du xeex fen man dama gëm ci sama adduna nit dëgg mooy xeex fenn waaye fenn du xeex fenn duñ dem fenn fenn ak fenn duñu xeexante benn fenn mooy mën sa moroom waaye dëgg moo mën a xeex fenn yow nan nga xamee ni Macky sàll ay sacrifice la def mooy rey nit yi nii di leen rey nii fu mu dem rek après rey ñëpp xanaa demoo nga xanaa nga am ay maamu demoo wala xanaa say maam ñooy demoo yi demoon ray rayaate hmm? bay wax naan dafa sacrifice la pour gagner élection yi sacrifice la nangam yow mi noo dafa xam ni sacrifice la xanaa demoo nga parce que man moom duma ma demoo munuma xam ni lii ay affaire de sacrifice la mais yow mii demoo nga wala nga am maamu demoo bu rayoon nit yi ñooy xalaatee noonu dem leen jàpp leen am nañu maamu demoo parce que xëy na seen maam bokk na ci ñu reyaate moo ñëw ne leen lii sacrifice la Macky moo ñu yónni pour ñu rey kon jàpp leen kooku xam ni am na maamu demoo ngeen yóbbu ko sa mboq ko moom ci accident mu faatu fa ndax moom it am na maamu demoo bu ko amuloon maamam du dem reyaate ñëw xamal ko ni lii demoo la sacrifice bu Macky Sall def la ñun ñoo demoon rey leen parce que ko amul maamu demoo moom munoo ko xam nit bu dem ba naan lii sacrifice la ba koy jiiñi nit naan lii sacrifice waa ji mooy sacrifié non war ngaa xam la mën nga ñoo wax noo def ba xam ko ñun tamit ñu xam balaa nga ñoo sacrifier yow balaa nga ñoo sacrifier nga xamal ñu nan nga def ba xam ni kii lii sacrifice la moom moo sacrifier nit yi nii ay demoom la comme ça ñun tam ñu mun laa moytu te xam ne yow mii demoo bu mag nga wala nga am maami demoo au lieu ñu toog xalaat analyser teg mais duñ ko def dañuy fen te fen moo gën a bon fen dara kenn mënul fen gañe parce que fen da yëngal aras kenn mënul fen ba gañe ci fen fen kenn du ko gañe kenn mënul gañe ci fen même fen boo ci gañe du yàgg comme mirage ni am Sénégal jégg na dayo doy na waar li am Sénégal lu ñu war a lijjanti la li am Sénégal désordre bi fa am n'importe quoi bi fa am maatay bi fa am corruption bi fa am reewande bi fa am xamadi bi fa am manque de respect notoire bi fa am manque de civisme bi fa am manque de patriotisme bi fa am a atteint son paroxysme toll na foo gëw ma ne doomu aadama mun na delloo ñii ci niveau bu ñu toll oto yi na temps oto mais Sénégal ngay toog bañ lay tegal Sénégal ngay dugg ci oto ñu tegal tegal lay chaise ba jël chaise ci buntu Njaga Njaay boo duggee nii Njaga Njaay fii nii trois personnes lu ndaw loolu trois personnes lañ fay nag droit deux personnes ak apprenti bi des fois sax mu def fa trois mu génnewaat beneen chaise bu ndaw fu ñu war a jaar nii mu tegaat ko fa moom mu toog teg taatam nii yow nga toogee ne teg sa taat oto boobu départ nit yëpp toog kenn waxut wax leen ma kan mooy defar loolu dégg leen mënu ma ne wax dama ne njaga njaay bi liñ duy ba mu fees tep tep tep tep tep Euh, Versailles 2 2 Versailles 2 2 Versailles 2 2 Versailles Versailles amul 2 2 te Versailles boobu yëpp ñoom ñoo ko def ñu dem ba mu fin ba fees tep tep tep fii à côté ci côté boo dugg si nii ñu dóor fa 3 ku nekk ni nii ku nekk ni nii kenn du mun a nokki 3 bu fekkee am na benn pataana nag bu ñëw taxaw toog ñuy hésité est-ce que dina toog wala parce que dina leen yàqal deux places parce que deux places lay jël benn mbufur toog. ñu ñu xat ñu dóor ko benn benn pàcc bu mel ni man pàcc bu mel ni man mu feccali ko pour place ba mun a fattu beneen bi ñu jël ñetti goldeer yoo koŋ dugal leen fële ñu jëlaat beneen chaise bu kenn xamul fu mu jógee comme ñu lu jógee ci asamaan am ay éponge am ñu teg ko noonu ci espace bu ndaw bi apprenti bi toogee nii yow nga toogee ne wala mu jël ñaar nit toogal leen foofu moom mu lang mu jóge Dakar dem ba Saint-Louis mu jóge Dakar dem ba Ziguinchor yegg mu jóge Dakar dem ba Kilikoro yegg laaj leen ma ñaata police la romb laaj leen ma ñaata gendarme la romb laaj leen ma ñaata homme de la romb mais yow waa léegi nit yi nekk ci biir ba accepté ba chauffeur bi taal naan cere cere des fois sax fil la ñuy jël fil des fois nga jël fil nii nga gis ñu jël fil ci suuf commencé cot cot cot wàcc leen pousse ma waaye wàcc leen pousse ma kon mun nga jàpp ni ñu nekk ci biir yëpp kenn amu ci kenn amu ci patriotisme kenn du ne déedéet am ñuy wàcc ak fil yi pousse ko des fois ci ci ci ci leen pousse ma waaye cest à de bordel bu neexut a lijjanti kon nit yi nga xam ne ñoo accepté loolu ba dem oh, nit yooyu buñ dee moom. da ngeen yëpp démons yi rek mais <laughs> yooyu du démons yi xam nga démons yi ñooy kumba amul ndey démons yi ñoom boo leen sosalee ñoom amuñu possibilité pour ñëw ne la bàyyi fen demon yi ñoom amuñu possibilité boobu te bu dee nit la boo ko fenelee day ñëw ne la bàyyi fen mais démons yi ñoom dañoo amul possibilité te ñoom Sénégal dañoo jàpp démons yi rek di leen rek di leen fenal démons yi am na lu leen métti de démons yi bu ñu mënoon dañuy grève de parce que ni ngeen leen di fenelee da ngeen di mandi seen carrière def lu leen neex surchargé oto yi ba mu fees tepp toog ba toogante seen biir chauffeur bi di di nalaw di naka sa xam ne di def lu ko neex ngeen toog def tekk muy xotti tali yi ngeen a acca na gaaw na gaaw na gaaw dañoo bëgg a yegg waaye chauffeur waaye gaawal tuuti waaye mu ne la non dama gëmën tuuti waaye yow bu ñu fontoo waaw dama am rendez-vous nga xool bu na ma bu ñu ne may ma tuuti ma nalaw nga bu koo mu ne la ok nga nga nga agressé ko mu dugg ci oto bi dem di nalaw di nalaw ba di rëll ci camion ngeen faatu ñu gën demooy demooy da cey waay demooy waay non Macky Sall demooy tasaaroo nañ ci réew mi demooy mais yow sa bopp demoo nga ndax yow bu chauffeur bi ne woon may ma tuuti ma nalaw deux heures de nga ne ko doo nalaw kaay nga dawal bi ne woon bopp day metti may ma tuuti ma euh, noppaliku nga ne ko déedéet bu la nee xaaral ma yàkkale la nga xeex ak moom yow moomu yaay demoo Sénégal amul leneen demoo de sénégalais ñooy demoo ñoom seen bopp ay demoo lañu ay demoo ñoom ñooy rayante seen biir ñoom ñooy rayante di mbëkkalante seen biir di toroxalante seen biir loolu mooy demoo ay demoo en chair ñoo nekk Sénégal ay demoo en chair chauffeur baag apprenti baag coxeur baag sénégalais bi nekk ci biir client beeg <laughs> ñoom ñëpp ay demoo parce que koo ci won ni damaa sonn mu won la ni man demoo laa ki nga xam ni dafa ñëw dugg ci oto bi nga ne ko noon instant yi dama chauffeur bi dama sonn dala ma may deux heures temps demoo la danaa la demal kooku demoo la ndax boo yeggee mbëkk war nga dugg ci suuf camion ñoom ñëpp faatu buñ jówoon dañ naan la yow moom moom moomu demoo la parce que moo la wax nga dem kon problème bi du apprenti du chauffeur du coxeur du client ñëpp la Le problème est mental. Le problème est psychologique. On a un sérieux problème de, de vécu, de vie. On a un sérieux problème de civisme. On a un sérieux problème de développement mental. C'est moo ñu sonal loolu du problème mu Macky Sall de ñun ñëpp la ñun ñëpp wallahi Je suis ñëw ci oto garage jour où damaa ñibbi garage lu euh, mu garage Dakar bu nekk fële bu nekk Pikine garage Pikine bi premier bi damaa ñëw gis benn sept place boo xam ni billaahi da ngay dugg laa la wax di gis tali bi sept place bi dafa wàcc wàcc wàcc wàcc ba taat yi di laal tali bi ma lii ñu ne ma ma ne leen ban mooy dem Kaolack ñu ne ma bii ma ne xaaral ma xaar beneen ban ban ban mooy demaat ñu ne ma beneen ba wan ma fële ne bee ma xoolaat mu xaw a nuroog bii ma ne ma ne grand euh, après bële ban mooy dem ma ne ah xaw ma de ma ne ko ah, ok d' accord amul problème léegi boo xamee après bii nii ak bee beneen bi rek wax ma. billahi jour boobu dawuma <laughs> wallahi beneen bi ñëw gën leen a torox. di na xoo bu waaj di kii sax bu mu koy indi dama ne lay lay la boo maraîcher sama xel bi naan waaw dugal dem nag booy fii ngay fanaan de ma ne garaawul ma ñëw toog ci ginnaaw jàpp ni benn am beneen waay ñëw toog beneen waay ñëw di traversé ma ne ko mais grand <laughs> affaire bi fees na mais ginnaaw gi nu mu nga xam ne suñ tànk yi sax mënul toog bu baax ñaari nit nga bëgg a ñetteel ñu mais grand loolu mënul nekk grand non yow man da ngaa dagg sa billet ma dagg sama billet euh, bug cee man ma ne ok d' accord dama génn coureur waaye foo jëm gars yi dañuy dem de ma ne ko noo man mënu ma nekk ci ginnaaw samay tànk sax mënul dugg boole ci nga bëgg ma ñetteel ñett ñett ñett ok waaye ñu jégalu de temps moom Facebook bi sama compte bi dafa a quoi restreindre lañ wax affaire ça fait un mois que je mais bon le combat continue donc ñun avons am problème ñun si suñu bopp car rapide surcharge transport bi manque de patriotisme le Sénégal a un très très très très sérieux problème et le mal est trop trop trop profond nit yi yon ne nekku Sen seen bopp lañu tal te na ma bañee noonu ba dugguma ci oto boobu ba mujjee ñibbi noonu la samay morom ñëw ñoom ñëpp la ma bañ ñoom ñu nangu ko ñoom ñëpp dem seen yoon bàyyi ma fa xëy na bi xëy am ñu yegg xëy na ku ci jour taxi ñibbi sama kër donc très sincèrement ñun dañu am problème te parewuñ pour faj ko parewuñ pour faj ko da ngay dugg sax ci kaar billaahi jëlee fa góom jëlee fa ba xotteeku da ngay da ngay da ngay dugg ci njaganjaay wala ci car rapide génn fekk sa am na lu xotteeku fii yow da ngay toog rek gis sa deret bi doo comprendre sax doo comprendre fan la sa nekk ci biir car rapide bi nga ko jëlee ci biir car rapide bu xomaat bi nga génne ak sa xotteeku ci bir car rapide bi xomat bi nga genné ak sa dana ci bir car rapide bi euh, njaga njaay bi war nga nga da ngay rek gis sa say nacc nàcc doo comprendre nan wa mais ci bir auto bi la nga tétanos déjà Sénégal 80% <laughs> yépp am nañ tétanos té piqûre tétanos c'est très difficile au Sénégal da ngay gis kuy dagg paaka du piqûre tétanos ki ki zeng dag du piqûre tétanos ku dugg ci car rapide wala njaga njaay du piqûre tétanos balaa maa dee sax ñu sotti ci souf bu dé boy ñu dóor ci souf bam fess masalé pour deret bi arrêté bu dé mag yi ñu dem wut alcool wala sen ko tak ko ci dem sen yoon fekk ñi ngeeg sen tétanos di di dox ak mom on a un sérieux problème de civilisation un problème de civisme aussi il faut ñu ñu xol suñu bop il faut ñu am luñu russe

dites-moi parmi ñii mais mais déggu ci ministre mais vous ci président mais déggu leen ci doomu ab député sax nous les ko ci. kon tous les papa se sont débrouillés pour yor ay auto, yu leen mën Ils ñen ñooy dee foofu dem leen xool yi am y a eu 50 et quelques morts il y' a une vingtaine de morts Il il y' a presque 75 morts en moins de deux semaines dem y ci 75 personnes yooyu ay këru Ils Nous lañ yoruñu ay oto ngi ci Nous ngi ci car rapide donc nous ñoo rétrospection et introspection Nous, nous bopp ñoo mentalité Ouais, ñun suñu bop nous wara déjà maintenant j'ai vu le gouvernement sénégalais après docteur ne dañuy jéem pour changer la donne Nous, indi ay comme toujours hein, bon docteur après la mort mais quand même une indi ay perspectives né affaire comme li amna il faut ñu changer affaire pour xol ay résultats soient bees ba xam dina ko joxe donc gouvernement bi sacrifice yi ñun la sacrifice sacrifice nous ñun la on se sacrifie tous Yo, sacrifice nga sacrifier. nga man keneen ak keneen ñu ñep ay sacrifice lañ ak ay sacrifié bëri na Sénégal ñoo xam ni dañ fa tey ay benn loxo lañ ci accident lañ ko amee ñoo xam ne benn tànk lañ ci accident ñoo xam ne dañoo paralysé ci accident lépp accident tout est accident au Sénégal buñ la piqûre nga accident te man lu ma jaaxal ci ñoom ko ci gis car rapide Ndiaga Ndiaye mu ngi cay bind ay alhamdulilah ay Dieu est grand ay Dieu est tout puissant ay jërëjëfe Serigne Touba ay jaralak man Cheikh Rafal ay jërëjëfe euh, euh, Bagnès kii naan lim jërëjëfe Limamou Laye kii naan Maodo Malick kii naan Boukounta Ndiassane mais ñooñu ci oto yi oto jërëjëfe yi ñoom nga fekk ci tali yi ñu moxoso moxoñeem moxoñeem moxoñe ba xoola feraay te oto bi fépp jërëjëfe nga fay fekk moo jë ci kanam nga bind jërëjëfe moo jë ci ginnaaw nga jërëjëfe Serigne Touba fee Alaaji Malick ke limaamu laaj ci kaw Baay Ñas ñun ana ñu fi new ñun ñëpp faatu nañ te ñu faatu ci biir ñoom ñëpp ba ñuy jërëjëfe lañ doon wax ay jërëjëfe ku nekk ñaan nga ñe faatu ci oto ba yëpp ku nekk ba nga cee dugg ñaan nga oto bi yëpp ay jërëjëf ci nekk oto bi yëpp jaaraama fi nekk ay yàlla noppi na yàlla baax na yàlla du morom ñu <laughs> léegi oto boobu nga fekk mu moxañe ñu rang ñoom ñëpp moxañe camion ba moom nga gis mu këpp camion jërëjëf bi yàlla noppi na yàlla baax donc camion boobu moo dëpp donc ñun war nañ mën a xam ni problème bi du ay affaire u jërëjëfe du ay affaire u yàlla noppi na du ay affaire nombo wax naa leen Sénégal ngay dugg chauffeur bi di dawal takk fii nombo ba fii volant bi muy war a yor mu duy ko nombo ba volant bi diis nga tourné ci kaw xool ay photo sëriñ fa fees tepp nga xool turu yàlla lañ ca bind ci alxuraan nga xool gis ab dàll xale caraxu xale bu bu bu mu lonk xale bu mu lonk nga xool gis ab téere mais oto boobu moo lay rey déggu leen ma de dama oto ba nga dugg chauffeur bi takk ba day fii nomb foo laal yaram bi ay nombolo foo laal yaram bi nombolo nga ne tey ñu yegg chauffeur boobu avant moo laal volant bi mooy wax def tufli chauffeur boobu avant moo toog mooy defar ndombo yi ba mu dëgër mu toog chauffeur boobu volant bu mu téye mi ngi fees gàllaki ndombo ci suuf partout mi ngi ko lonk ay téere lonk na ko téere fu ne chauffeur boobu nga xool ci kaw ab dàll bébé mi ngi lang benn dàll xale bu ndaw xom fu mu ko jële mi ngi lang mu ngi ko takk ci lu euh, mu tuddati Euh, mi ngi ko takk ci euh, ci genre pare-brise bi noonu ci seet bi mi ngi ko takk foofu waaye oto boobu mooy dem ray jila la mbëkk ci garab wala dugg ci camion donc problème bi du ay demoo problème bi du yàlla mais problème bi ñun la ñun ñoo am problème mais maintenant

Mais on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Mais nous avons le beurre et l'argent du beurre. Soit nous voulons avancer ou nous voulons Mais pour faire que le gouvernement est venu, ay décision ne léegi dañ koy changer dañuy defee noo faire ni bu ñu ko defee xëy rek nit yi du bëri ñuy dee a dina wàññeeku accident yi dina wàññeeku parce que mais man mais mais benn waay tey dama ko woo xam lu ma wax moom dama dafa yeewu woo ma ne ma mais ma ne ko yow dégg nga accident bu am mu ne waaw waaw mais accident en rétroviseur intérieur bi mu ne ma waaw waaye yow mais benn dégg naa benn mbaam moo noon traversé quoi mu ne ko woy mbaam bi mais ma ne ko muy yéen Sénégal lan moo tax ay boo leen di dawal ay mbaam buy traversé wala fas buy traversé doo leen taxaw xam nga lan la ma wax. bille te mi ngi yor oto di dawal de mu ne loolu jinne la quoi jinne la booy dawal nii guddi benn mbaam traversé la mbëkk ko mbëkk ko man dama koy mbëkk déggal waa jooju ab kilifa la ci réew mi barke alxuraan kilifa ci réew mi ne loolu man la dama koy këf mbëkk ko dem parce que jinne la ay jinne yu lay jéem a jommal. ab mbam buy traversé kon mbam dal mom goudi mbam bo gis jinne la mbam bo gis demb la kon dal goudi mbaam yi ay demb lañ ay jinne lañ te mi ngi yor auto di dawal nee mom bu doon mom la day door mbam bi traversé ma ko lu tax munoo taxaw mu ne munoo boo taxaw mu jommal la bo taxaw dala lay jommal boy mola, loolu <laughs> yow yow fii booy Mollah l'Afrique a ses bo taxaw dala jommal le kon car rapide bi wala njaganjaay bi def jumni nit ak juróom-ñaar bo taxawee xaar mbam bi mu traverser la mbam bi day tassaro genn dugg ci biir jombal leen mais dekk bob nan lañ koy defare billahi dafa débaawuñ sax parce que bu ma déggee mu réfléchiré non rek la ne yalla mais c'est fini mu ne moom bu doon mom da day mbëkk mbam bi mbam bi xalangu mu continuer parce que jinn la da ko doon jommalal mu ne ko kon non ngay def. ma ne ko man de bu doon man damay freiné ndànk bàyyi mu traversé mu ne ma boo ko defoon yéen ñëppay jommi day tourné mbaam boobu mooy tourné soppaliku dugg foofu jommale nii ñëpp ngeen dof <laughs> waaw léegi dëkk boobu dëkk bu nan lañ koy dëkk boo xam ne sa waay mbaam borom day soppaliku fas bi lay traversé day soppaliku waa dëkk boo xam même nit yi ci biir oto bi am nañu ne dañuy soppaliku waa dëkk boobu nag ban ministre moo ko mën a defaat ban ay règlement Il y a arrêter accident yi solution lañ préconiser yo xamni ni changer nit bo xamni ne bu la rombé goudi jinn la fas bu la rombé goudi dem la dal la ko <laughs> mais sa way on a un problème on a un problème <laughs> sincèrement bu non, non, la non, non, sincèrement <laughs> moom sama gars yi garaawut quoi bu dee aw seen réalité loolu la d' accord kon yéen bu leen mbaam rombee mbëkk leen mais kon nañ dee rek kon kay jaratul kay ñuy gouvernement bi di préconiser ay solution gouvernement ñoo jarul solution toogal toog leen gars yi ne nañ loolu yëpp ay réalité leen mbaam bu romb mbëkkël mu jàll fas bu romb mbëkkal mu jàll demal sa yoon parce que jinne la defa nar a soppaliku ñëw rey la ñoom no no du ne ñoom seen réalité la amul problème dund leen réalité yooyu kon kay nañ continuer on on compte nos morts kon chaque semaine nañ compter rek ñaari oto ñaari ñi di nalaw këccu këccu këccu mbëkkante tëll de ñu ne lan ay jinne leen jaar mbëkkal leen ah comme yéen loolu ngeen gëm xay xëy na ku ci ñooñu deewul dañuy génn rek nga ne la mu ne waa benn lëppaa lëpp laa gis kenn la benn ceeli laa gis comme léegi <laughs> kon yi affaire bi loolu la xëy na ñi dee yoonu Tamba boobu chauffeur yi boo leen génne woon ñoom ñaar indiwaat leen ñu dundaat nga ressuscité leen xëy na benn benn chauffeur wu kaar car bi danaan man lëppaa lëpp laa gis beneen chauffeur bi danaan man benn euh, benn ceeli laa gis kenn du leen tëj defuñu dara kon lenn li ceeli la keneen ki lëppaa lëpp bi moo ko jox man comme <laughs> yéen loolu ngeen jàpp ni loolu euh, moom mooy indi suñu accident yi kon daal buñ ci xalaat buñ ci préconiser ay solution buñ ci def dara buñ ci wut ay solution bu ñu ci xalaat donc daal affaire yi jinne la ak accident bu amee rek jinne la ak accident bu amee dëmb la accident bu amee ay nuuxóoro leen jaxase kon nañ ko xalaatee noonu rek jàppee leen ko noonu grave amul problème léegi nag man ma dem ci chauffeur comme gars nee nañ loolu seen réalité la nit moom da nga koy bàyyi ak ay réalité ñoom ay réalité jinne yi soxor lañ yor jinne yi jommalaate jinne yi mbëkkalante ay oto jinne yi yoo xam ne dañuy rey ci ci tali bi yi di faatu rek di faatu rek te mais nee nañ seen réalité la ay nous yi réalité lañu yor réalité la nous ah, nañu leen bàyyi ak réalité amul problème ñun nous continuer donc euh, donc chauffeurs yi ñoom à partir de demain dañuy grève ma leen di ñaan chauffeur yow suñu frère nga apprenti yow suñu frère nga ki nga xam ni moom frère mooy ñi nga xam ni mooy transporteur yi boo leen grévé doo leen ko def ministre doo leen ko def doomu ministre doo leen ko def doomu président doo leen ko def doomu autorité ñun ngeen koy def parce que ñun ñooy jóg bëgg a dem ndox yi sañu soxla mu tëñu ñun ñooy feebar bëgg a dem faju ji hôpital am rendez-vous mu tëñu ñun baadoola yi nga xam ne defuñu dara ñun ñooy sibiir donc loo leen di def xalaat leen ñu ñu wàññi tuuti politique ñuy xalaat ci ñi nga xam ne dañ mooy néew di doole yi nekk Sénégal ndax néew di doole yi ñoo ëpp fuuf boo leen grévé ñu bëgg a dem liggéey duñ mën a liggéey ñu war a faju ji duñ faju ji boo leen grévé ña dee ñëpp bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñoo ko causé feebar wala dem dialysé wu wala dem wala dem defi opération wala dem Euh, faju etc etc et grève amuñu fu ñu demee loolu rey ngeen fa ay doomu aadama vous portez ses responsabilités parce que yéen a grève yéen am na neneen lu ñu mën a gréver loo xam ne comme forme de lutte bokk na ci comme nuñ defee casserole mais ñu ne apprenti yi wala chauffeurs au lieu ñu arrêter seen auto mais ñu ñu sol ay gilet jaune wala ñuy ñuy dóor ay casserole wala waree ba am lu ñu def luy wane ni ñoom vraiment am na lu leen metti askanu yëpp xam ko jàppale leen vraiment moo gën grève illimité grève général illimité ñun ngeen di sonal doomu baadoole yi ngeen di euh, vraiment teg coono ñu ngi leen di ñaan daal ngeen dellu ginnaaw te xam ni ñii nekk ci seen oto yooyu du ñuy ministre du ñuy doomu ministre du ñuy doomu député ngeen ngeen bàyyi ci xel te xam ni vraiment ñu ngi leen koy ñaan grève bii nii ñun ñooy sibiir ñun doomu baadoole yi ñun ñooy sibir loolu moom ñu ngi leen koy ñaan bu baax bu baax a baax a baax ngeen jàppale ñu ngeen xam ni one de tout cœur avec vous mais am na yeneen forme de lutte yoo xam ne boo ko defee nguur gi dinañ ko yëg dina metti ci ñoom te doo leen ñu teg coono ñun askan wi nga xam ni defuñu yëguñu tinuñu ñu ngi ànd ak yéen ci naqar ci mettit bi ba pare ñun la ñooy dee ci seen oto yi waaye ñun nit vraiment bu ñu leen tegee dara ay loo xam ne gouvernement dafa bëgg changer mbir yi da ngeen ci war a jàpp que ngeen ne da ngeen di grève donc bu fekkee ni nit day nekk ci classe di perturber professeur bi dóor ko mu ne dootul ñëwati école <laughs> je pense que euh, wala mu ñëw ci classe bi di sànni fa ay xeer naan day grève je pense que loolu moom tooñeel weesuwu donc ñi leen di ñaan le gouvernement sénégalais ñu bàyyi xel ci nous ñomit ñu tok ci benn table discuter avec transporteurs yi ba trouver ay solution adéquate ci problème yi nga xamni mo waral euh accident lolu gouvernement bi bu amé accident ñomit waru ñu dem précipitamment indi ay né yi moy solution da ngay jël les acteurs ñi nga xamni ñoo œuvre ci loolu nga toogandoo wut ay solution préconiser ay solution pour après yu adéquat euh yo xamni après ñom duñu ñu génn di marche wala di lolu moy euh cohésion ngeen cohabité wu waxtaan pour trouver ay consensus c'est ce lu wara euh, sinon comme nous leen ñun man ñaan transporteurs yi ñu vraiment ci grève bi wax yi politique askan wi nga transport bi chaîne bi les gens meurent comme des mouches ci tali donc il faut ñu solution donc gouvernement si vous dee des solutions, la gis dañ ci and développé ko xool résultats yu positif kon vous ngi les syndicalistes yu mel nii Alassane Ndoye le député Alassane Ndoye maire et Gora Khouma ñi nga xam ne ñoo jiite syndicat des transporteurs Gora Khouma et Alassane Ndoye ñu wàcce seeni nous ñu xam ni nous subir moy population bi moy bado qui ñom ñoy yewu suñu yaay yi yanu est euh, tame yore yanu qui sont yanu di wuti luñ gi di askan c'est vrai la grève est un droit une revendication sociale mais il y a différentes formes de grève différentes formes de grève du grève boo xam ne rek bu dara amee rek da ngay dem taxaw ne du ma dawal bu boobaa ñi yor oto ngi dawal doomu ministre yi dinañ dem fu ñu bëgg a dem doomu Richard yi dinañ dem fu ñu bëgg a dem ñeneen a ñeneen ku baadoole ñoo sonn sa yaay day yeewu bëgg a dem jaayi jën wala mu dem jëndi poor jën du ko am. kee yeewu war a dem liggéey du ko am donc baadoolo bi mooy sibir loolu mooy la triste réalité. donc nous, ñaan les transporteurs encore une fois nous jël ay affaires politique tegee ko et nous bàyyi xel lool askan bi nga xam day subir fii intelligemment am transporteurs yi ñi ngi fi dañuy grève mais population bi duñ ko yëg duñ ko yëg moom duñ subir les conséquences loolu mooy xeex des fois nga gis syndicalistes yi nga xam ñoo métro bi mais di grève nous, tok seen sol seen t-shirt taxaw ni dañuy grève sans ñu arrêté métro yi wala ñu métro yi wala ñu sax métro yi à la place de ngay minutes pour métro bi ñëw ñu xaar loola 10 minutes wala ñu sol seen t wala ñu am lu mais yow ñëpp téye seen oto mais kan y a des formes de lutte bëri xeetu xeex lépp nag dañ koy xalaat c'est pas parce que dañ la dañ la xam nga du c'est pas parce que dañ la dóor rek que da ngay dem for xeer sànni y a beaucoup de de lutte waaw yoo xam ni ay moyens de pression la yoo xam ni du dem ne doo dawal <laughs> yaa ngi tooñaa la ñoo xam ni seen yoon nekku ci mais ñan ñooy dee ci oto yi mais ñun ñooy dee ci oto yi ñun ñooy accidenté ci oto yi ñun ñooy dee ci hôpitaux yi donc ñun bu ñu demee ba ne du bii c'est parce que ñun mënuñu dee ci oto yi accidenté ci oto yi faatu ci oto yi ba pare boole ci ñoom buñ grève ñun duñ amati oto duñ dem liggéey duñ dem faju ji mais <laughs> koo koy def bu transporteurs yi toogoon duñ grève grève cinq jours kan kan lañ koy kan lañ kan mooy gën a subir billahi dina am kër yu amul lu ñu lekk bu transporteurs yi taxawoon cinq jours di grève am na kër yu du lekk ndax maire bi doon yeewu fajar di dugg ci car rapide njaganjaay yi wala njaganjaay di dem port di dem rangu ci ay jën wala di dem syndicat di dem jënd ay madd wala di dem jënd ay uul wala siddéem wala wareefa di ko indi wala ay jën di ko teg wara a dem war dem ji ay euh, comment dirais-je ay légumes tek ko ci table di jaay comme marché ci koñ ba kooku bu amul lolu te mënul dox parcours bobu je pense que bo deful ndank du lek wala du nan wala du lek wala du nan lolu moy grève le 19 janvier à Paris c'est tout le monde dort pour les retraités eh, mais c'est ça c'est des formes de lutte

accident linguiste, ligne, de vous accident, accident, des morts, des morts et des morts. 50, 20, 30, 40. Mais le gouvernement, vous toquez, vous avez une solution, vous avez une technique, mais ni n'avez pas de nom, vous avez une grève. Vous avez une grève, Quand <laughs> me papa, avec yaye, mais vous avez une histoire, quand me sonne, mais vous avez une histoire. papa ji ne dama lay jox dépense tel temps mu gis ni dépense yu joxe jabar ji di togg togg bi di saf xorom di di di du neex wala du di am kaari mu ne ko legi comme temps la la joxone te gis na ni sa yoy togg xorom si bili, jimbo ji beuri kaani gi beuri legi ni lañuy def ya ji ne tuma sax tuma mais papa ji ak yaay ji duñ sonn parce que papa ji moom yor na lu mu dugal ci poosam day dem day dem dënd di bi yaay ji doon togg moom mun na togg lan lay def ji day dem wuti ay nenam ak ay def ay omelette mais kan mooy sonn mais doom yi ñooy sonn ñoo dul lekk ñooy xiifa noonu la parce que ministre bi day taal otom dem am na ay bon d'essence am député bi day taal otom dem am na oto am na ay bon d'essence am chauffeur bi yor otom moom day taal dem parce que yor na otom yow bi amul oto nag yow bi amul njëgu essence nag te bëgg dem wut loo lekk bëgg dem faju ji boo feebaree bëgg dem ci rendez-vous kan moo sonn <laughs> mais ñun ñooy sonn ñun ñooy donc man comme nous ko di ñaan transporteurs yi ñu solution terewuñ leen marche leen revendiquer mais ñu nous ñu xel ñun pauvres nous ñun baadoolo lay yi nga xamni vraiment de transport euh, ñun peuple subir les conséquences nous bayyi ñu xel trouver un consensus trouver une solution avec le gouvernement que vraiment nous, ñi nga xam nous les conséquences Nous devons mettre lool ci ñun Nous nous ci yi ñun les syndicalistes euh, du transport à savoir Alassane Ndoye député maire et Gora Khouma ngi le peuple sénégalais ñi ngi leen di ñaan ngeen bàyyi ñu xel ngeen toogaat xalaataat nan la ñuy defee parce que tamit c'est normal fii Canada dafa am ay pneu d'hiver dafa am ay pneu d'été tey boo ñëwoon hiver nga dem installer ay pneu été mais bu la police bi jàppee mais sa waay <laughs> tu risque ay amende bu doy waar ba ci pneu mais Sénégal amul pneu d'hiver amul pneu d'été bu dañ koy dañ koy alors donc solution yi mën na ñëw bu transporteurs yi ak gouvernement bi ñooy toog trouver solution et ça passe mais sincèrement nous ni ñuy ci accident yi chaque jour que Dieu fait benn njaboot di jooy papa ma dee ci accident yaay ma dee ci accident mais loolu dafa metti mais xalaat leen nu pneu baaxul oto yàgg nañ parc automobile bi màgget na lépp lépp lépp lépp ba ci lépp ba ci ba même auto police xool leen auto police auto police Sénégal mais mais ban auto auto laa musul gis oto police benn bopp la après benn kaa benn case case mais loolu <laughs> ban oto la wër na adduna ba mu daj asi Europe Amérique Australie continent yëpp teg naa fa tànk musuma gis oto police bu mel comme oto police yu Sénégal man damay laajte lii oto mbort la wala oto janax la mais mais li ban xeetu oto la fan ngeen gisee oto bu mel noonu mais kon Sénégal lañ koy defaree. ñoom bopp bi rek lañ soxla bu ñuy ñëwee def ci benn case dóor ci benn xaw ma case xaw fu ñu jëlee seen case def ci benn case ni mais ci la ñuy ubbi nii comme comme xam lan la may jox man lool saa yu ma ko xoolee sa case case pitax yu ma yoroon pitax dama xam man dama yàgg bëgg pitax mais dama amoon case ay kaas ci kaw terrasse bi ci kaw dama fa doon def ay case quoi dafa def samay pitax ma bëggul pitax na comme sama case bi la may saa yu ma gisee seen seen oto boobu am giri yi noonu mais case sama case pitax yi la may jox mais même dafa am benn affaire bu ndaw nii xam nga case case yi pitax yi day am benn kii bu ndaw benn porte bu ndaw da nga ko leen ubbil da ngay ubbil pitax yi foofu des fois duñ jaar ci porte bu mag bi benn genre fenêtre la quoi nga ubbi ko xam nga day def nii da ngay gis pitax yi taxaw fa et tout ça quoi mais noonu la mel oto police Sénégal yi am na benn kii bu ndaw bu ndaw benn case bu ndaw comme pitax fu ñu war a génne toog nii am buntu bu mag bi mais man damay ki ñuñ ñu fay dugalee nit yi dama nan mais ki ñi pitax la ñor ay pitax la ñom ta bay nit yi ay pitax dañuy ubbi nonu pousse ben pitax ja ubbil leen ci bu ndaw di ndaw di leen yëndu mais auto yo fuma ban dekk ci aduna ngeen gis auto auto auto yooyu mais lepp am problème Sénégal lepp tout lepp problème la nga gis fi auto police ay 4 x la ay 4 x yu tooy xepp auto police yi ñaanu ci dugg mais auto police yi ay 4 x la auto police su euh, Paris ay 4 x la wala ak ay wala ak ay bis ay bus yu ngand ay bus ay 4x4 mais bu Sénégal boobu man mosuma ko gis maanaam kon ñoom comme car rapide car tamit Sénégal rek la am car rapide seen wër naa continent yëpp car rapide Sénégal laa gis mais fan lañ koy defee rek fan lañ kan lañ def mais ay barigo la ay barigo lañ jël xotti ko teppi barigo yi tasaare ko dóor ko ko ko ko dóor ko ki mais mais car rapide ay barigo la gars yi dañuy ñëw toog ci biir barigo bi ci barigo yi lañuy toog ci biir barigo yi gars yi dañ leen di defar barigo nii. wutal def ci moteur dóor ki kaay tok ci barigo yi mais sa way ku dee ci bari go nak yaa tàggee sa bopp de ku dee ci bari go ya tàggee sa bop ah ku dee ci bari go mais yaa tàggee sa bu ay eh, auto yu 1600 nangam auto 1700 nangam ko wax mo ne dama ci dama ci dakh sama dépense mais fu mu gaay damay wax ni rek mais gëwuma ni solution mu na am quoi gëwuma ko parce que ku ci nek dépense ngay wër damay dàq sama dépense mais mon père auto bi nangam non damay dàq sama dépense hmm? damay dak sama dépense kuy nalaw né nalawul da nek ci kanam auto bi waji di nalaw mu né nalawul Maintenant, c'est difficile. C'est difficile. Man, pour moi, la pauvreté, non, n'a tout la quoi. La pauvreté indi. La pauvreté. bu ñu les gars qui passé, qui ci terre bi ne na changer Quand vous maa ngi transporteur. vraiment dëkk bi metti na xaalis amul accident yi bari nañ nit yi de bari nañ loolu ñu bàyyi ñu xel ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi ñu xel di ñaan pauvre sénégalais bi nga xam ni amul moyen de transport jënd oto amul moyen yor oto ngeen bàyyi ñu xel di xam ni seen grève bi boo ko entame population bi nañ sonn lool jigéen ngeen liggéey bi waaye it ñun pauvre baadoolo bi dinañ sonn am na yeneen forme de lutte kenn terewu leen xeex mais foog nga xool ci yeneen forme de lutte voilà Sénégal nag moom <laughs> man de dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg góomu ni dina defaru quoi bu ma bu ma naxul sama bopp xëy na loolu moo may arrangé ma gëm ni Sénégal du defaru pour mu mën a defaru mais bu fekkee ni dama gëm ni Sénégal day defaru ragal naa ni du defaru man loolu laa ragal ni Sénégal boo deful ndànk du defaru voilà parce que nit yi jóguñu pour mu defaru nit yi aussi jóguñu pour jiital intérêt askan jogu ñu pour jiital intérêt askan wi loolu mooy problème bi c'est tout un problème parce que ku ci nekk sa intérêt ngay demee ku ci ne chauffeur bi intérêt lay demee apprenti bi intérêt lay démé et cetera et cetera coxeur bi intérêt lay démé sénégalais bi tamit ñu dugal ko ci auto bi intérêt lay démé parce que bu fekkoon mu fess tam du né noo daw ma donc euh, waxon na len ko chaque jour de national la chaque jour non tant que gisuma sénégalais changer mentalement man gëm na ni Sénégal du avancer, du dem tant que gisuma ba su ma gisee yenn xeetu xalaat yi dinaa ne lii dëkk bi jël na départ mais mënu ma comprendre nit bu yor oto yor sa kaat kaat bu tooy xepp woo ma fajar ñuy waxtaan mu boy ma maa ngi doog a yeewu ma ne la yëng accident amaat na nga ne ma wëyi waaye maa ngi koy doog a gis ma ne la wëy benn il paraît que benn mbaam moo doon traversé waa ji di moytu di mbiic ci beneen côté bi camion bi dugg ko 19 mois mu oh, man bu doon mën a ah, damay mbëkk mbaam bi ma ne ko ah mais lan moo tax munoo feree na xaar mbaam bi romb non <laughs> jinne la jinne la gis nga mbaam guddi non jinne la dalay jommal boo taxaw noonu feree na dalay jommal bu doon mën la dama koy mbëkk jàll. mais nan la nit di xalaatee noonu te mu wóor ma nii ku may waxal noonu yor na oto bu tooy xat ab autorité autorité du n'importe qui de ab autorité ku ñuy woowee kilifa Sénégal kilifa kooku bu xalaatee noonu mais ñeneen ñi ni ñuy xalaate ab kilifa ki jiite kilifa bokk ci ñuy jiite kooku bu xalaatee noonu <laughs> on va où on a des problèmes ah problème donc man pour man lépp bés bu ñu mentalité changer point de vue changer ni ñuy xoolee mbir yi ak ni ñuy caytoo mbir yi ak ni ñuy càmbaree mbir yi bés bu non je me dis que changement mun am mais ni ma gisee ni moom sincèrement hein il faut ku nekk laal sa xol l'al sa poos l'al sa doole waaye laal aussi sa expérience ak li nga am ci sa bop ñu def ko ci pat bi pour mëna jëm kanam il faut ku ne am lu nga indi dañuy tabax il faut ki indi ndox ki ki indi souf ki indi xeer ki indi euh, bant ki euh, transporter ko ki yéegal ko loolu moo ko mun a defar mais ni ñuy doxee nii bu keneen ñëwaatoon nañ te idées yi changé wuñu perception yi changé wuñu nit yi jàpp jël lépp def ko mystique jël lépp def ko ay jinne jël lépp def ko ay nooxóor sa waay loolu munul dem et ça peut pas munul ku avancé wul ñu ne dañ ko mystique ku wut sottiwul mu ne dañ ko mystique ki wër liggéey mu dëgër ñu ne dañ ko mystique ku dee ñu ne dañ ko mystique ku accidenté ñu ne non jinne la ku faatu ci accident ñu ne non sacrifice la <laughs> wa mais léegi léegi kañ la nit yi en fait mais donc donc lan benn nit du porter responsabilité kenn dara mënu ko dal mu ne non li man la man ma, pëy xeyna solution yu ma préconiser du du lii du du solution ci sama problème il faut mo wuti li wala il faut mo wuti là. mais bu fekkee lu yëngu gars yi defee ko noonu mais non man loolu laa gëm dama gëm ni nit mooy développé boppam nit mooy ñafeel boppam nit am na loo xam boo ko defee sa bopp de mais yow mais déedéet da ngeen am jinn mais mais moo tax yéen mun leen mystique président américain bi pour mu mu xaw mu mu perte connaissance daw bàyyi Amérique ñëw ñëw Sénégal di leen liggéeyal da ngeen mun rek. mais lan moo tax yéen leen mystique mystique ba nga xamni ni bi bu ñëwee bu ko jël suñu pétrole duñ ko ñemee jël da ngeen mën a mystique rek mais lan moo tax mu leen mystique ba nga xamni mystique tubaab bi bu ñëw di signer suñu gaz mais daw du fa mëna ñëw fekk yeen ngeen ko mystique ko comme yeen mën ngeen mystique ku sacc seen portable ngeen mystique ko ba mu delloo portable bi xana bu tubaab bi ñëwee signer seen contrat pétrolier et gazier mais mun ngeen ko mystique mu ñëw delloo ko ah mais loolu mais da ngay gis ku ñu seen kër muy wër ay sëriñ pour ñu mystique kool ko pour veeram yi ñu sàcc mu delloo ko ko mais comme yow mën ngaa mystique am nga sëriñ bu mën a mystique ba sa veer yi bu ñu ko sàccee mu delloo la ko waa ji ñëw doxaat foofu mu doxoon ñëwaat tegalaat la ko fa mais mystiqueal ki nga xam ni moo jaay suñu pétrole ak gaz moom mu nga mystique ko mu ñëw delloo contrat bi kii sàcc suñu oro sama dollar bu ñuy juddoo ba léegi di ko jox tubaab bi mais lan moo tax yow mënoo ko mystique ba tubaab bu mu ko jox mu mystique ak tubaab bi tubaab bi ñëw delloo la ko sa or or bi nga xam ni ñun mosuñu cee jëriñu mais c'est pas logique c'est pas logique kenn du assumer ses responsabilités kenn du def lu ñu background check mais mais kenn du def rétrospection kenn du def introspection xool ci sa bopp tout tout toi lepp lu lu wër lan mo waral li, lan mo waral li, luma def li, li lutax li am non c'est vrai c'est une logique de pensée ou bien notre manière de penser mais <laughs> logiqueul Billahi logiqueul dañu am problème mu xel problème mu tok problèmes problème mu mais c'est pas logique tout est mystique Sénégal lepp mystique la mystique mais mystique bon moom ñun suñu biir rek yow boo génnee Coupe d'Afrique Ben nga benn nga fa jël final nga dem sur 1000 Coupe d'Afrique C'est mystique boobu feeñul fenn nga dem Coupe du Monde premier tour nga génn rek ñu le tëll nga dellu an C'est mystique. waaye yow dal yow amoo ay mystique yu jëm kanam yow bu kenn dé, c'est mystique bu kenn accidenté c'est mystique bu kenn c'est mystique bu kenn c'est mystique bu kenn tafaroo sax ñu c'est mystique. billahi ànd naa nit senegal benn waay benn kër bu ngand <laughs> non keroog laa tiit benn copain mu ne ma nañ booy nañ dugg ci gaale bi quoi ma ne ko looy xam kenn mu ne ma non c'est que waa ji boo xoolee kër gi kii am na ñaan ma ne ko ñaan mu ne ma am na ñaan parce que gis nga booy Mola ñu naan la ay sëriñ bi baax na bul dem foofu. xoolal waa ji li mu am xool leen xoolal waa ji li mu gaare oto ñaata oto la gaare ci buntu kër gi xool leen kër gi ni mu mel kon kii am na ay ñaan kii bu la waxee sëriñam bu ko ñaanal boo fa demee même bu la laajee dix millions fayal parce que sëriñ bi am na ay ñaan kii am na ay ñaan kii sëriñam sëriñ bu baax la donc mu muy bëgg a xamal ne ma kii am kër gu bon gi kooku amul ñaan ki nga xam ne moom këram ay mbaam fa lañ fa takk ay mbaam sëf lañ fa takk googu amul ñaan yow loolu la ma waaj wax ma ne ko mais yow na nga mën a duggee kër jàmbur di laaj borom kër gi di ko laaj pour mu wax la euh, sëriñ bu mu pour pour mu ñaanal la loolu moo tax mënoo jàpp ni kii dafa liggéey lii xëy na war a mu sàcc ko da ko liggéey wala mu sàcc ko mais loolu moo tax yow richesse ji yow lu gisoo ci lu dul sëriñ moo ko ñaan ñaanal mooy gëm loo nii nooy ñii boo xoolee lii da nga xam ne kii dafa am ñaan kon Sénégal boo tekkee dafa am ñaan boo toroxee dañ ko dañ ko dañ ko ñaan dañ ko toroxal dañ ko maanaam dañ ko sëriñ boo amee <laughs> sëriñ bu baax la boo ñàkkee dañ ko dañ ko yàq mais kon nit mënul jóg liggéey daal nit mënul jóg avancé loo kon daal Sénégal buñ dee ay euh, jinne la buñ dee sacrifice la bu ñu dundee euh, dañ ñoo ñaanal sëriñ kon mais kon sénégalais lu ñuy def ñoom kon kon kañ la liggéey ñoom lépp ñaan la kon kon kañ la liggéey kañ la liggéey ñun ñëw fii kaaw bi liggéey bay bëgg a dee yow faya ba guddi ngeen liggéey yor sax xaalis ñëw ñu ne la ban sëriñ la ñaanal ban sëriñ la ñaanal sëriñ bi la ñaanal mooy bu lay wax ni yeewul fajar liggéey liggéeyal ba mel ni tey nga euh, euh, dootoo dee jaamul yàlla ba mel ni tey ngay dee <laughs> liggéey la ak jaamu yàlla point ku sa bopp ku nekk mun nga fi ñaanal sa bopp mais loolu kese la mus naa ko laaj benn waaye tamit quoi waaye xam nga Sénégal moom daa bëri ki ñu am fu ñu dem waa ji sëggal bopp nii rek am lu mu wax tak tak tak rek jóg jël keneen ci ci ci bopp ñuy dem ma ne ko mais man booy jaxle affaire bi gaaw na de luñ fa yàggee noonu yëpp mais waa ji defuñ sax une seconde mais yow léegi ban ñaan moo am boo xam ni euh, ñaanu trente secondes ban ñaan quoi xanaa bisimilah sax bisimilah rahmaani rahim loolu rek def na trente secondes mais ban ñaan moo moo xam ni. da ngay jël bopp nit rek na ko nee nii rek mu jóg ban ñaan ko ba ban xeetu ñaan nga <laughs> xam ne ma noonu looloo ma jaaxal dama xam yàgg gi ñu fi yàgg yëpp waaye jàpp suñu bopp yi rek jóg jóg jóg léegi <laughs> ñu war a xaar boobu ñaan pour gis ko kañ pour ban saar moo day noonu ban secret moo xam ne ñaari ñaari phrase la wala trois secondes dama borom xam-xam yi yee ma xam tuuti parce que xaw ma de ay laajte la dama bëgg xam mais gars il faut ñu jóg il faut ñu nangoo liggéey il faut que ñu dëddu lu yomb il faut ñu xam ne dëkk yii laa la wax caaxaan defaru ko dañoo liggéey. jiital ngor jiital jom bañ corruption dëkk yi yëpp liggéey looloo leen ko may il faut ñu jóg buñ ko deful duñ dem liggéey yëpp dafa loolu moo leen waxoon wax expliqué woon naa leen ko fi parce que woo sama benn copain laay def vidéo di dox muy xool temps bu booy xool waaw temps bi nice na coow booy moo laa fi rafet na le non waaye booy ñu nañu yàlla may dëkk bu mel ni waaye yàlla na yàlla def Sénégal mu mel nii ne ko yàlla may may lu ñuy di laay tali bi nii yàlla nañu yàlla may defaru ko de laa xoolal poto bi lampe bi gis nga muy tàkkee ah yàlla yàlla yàlla nañu yàlla defaru ko de laay oto bu tooy bi romb fii waaye gis nga oto bi wuu waaw oto bi waaw yàlla yàlla defaru ko de ay nit ñoo toog defar ko liggéey ko talibi bi nit ñoo ko liggéey sàcc ñu alal bi ñu jox leen ñu def ko ci. métro bii di daw yàlla yàlla tam indiwu ko fi oui wax nga dëgg daa ah. wax ma ne ah. boo toogoon foofu di ñaan yàlla na yàlla cent ans mille ans ba ba ngay faatu yàlla du dellu Amérique def ko Sénégal tant que liggéeyoo ko Amérique tooguñu naan yàlla na yàlla dañ koo liggéey Europe dañ koo tabax Asie dañ koo tabax Japon dañ leen dóor Hiroshima bombe Nagasaki ay tsunami ay volcan ba léegi tey bokk na ci pays yu gën a développé ci monde bi yàlla na yàlla defaru ko mais dañ ko liggéey loolu laa ko wax ne ko liggéey lay la yàlla na yàlla toogal foofu naa yàlla yàlla boo doon ñaan dix yàlla du jël senegal defar ko comme fii munul nekk il faut ñu faxasu jóg dem liggéeyi lu ñëw ñu jiñ ko yàlla bu nit dee ay accident ñu wéy yàlla accident yàlla balaa maa dee waaye ndogalu yàlla la mais lan mooy ndogalu yàlla mais nit ki nit ki nga xam ni moom moom moom daa dee ci accident mais dites-moi mooy lan ciy ndogalu yàlla yéen nit bu dee ci accident lan mooy ndogalu yàlla foofu hmm? lan mooy ndogalu yàlla ci nit bu dee ci accident nan la mun a nekkee ndogalu yàlla nit nit ay ay nit yi caaxaanee seen bopp sacrifier doomu aadama bi mbëkkal ko beneen oto mu faatu ndogalu yàlla la te koo ci tem këram di ko dëj ci dëj ba mu ne la ndogalu yàlla la mais gars yi sonal nañ yàlla gars yi daal ñoo ñoo ñoo sonnal yàlla yàlla daal moom moom genre kumba amul nday la moom duñ ko def moom lu ñaaw lu taq lu tëlim ñu sacrifié ñu ñu rey ndogalu yàlla la benn waaye jël paaka dàq nit jamate ko ba mu dee ñu yóbbul ko ñu suuli waa kër ga ñëw toog ndogalu yàlla la nu ko doone yàlla mo wax waji ji jëlal paaka bi ya yàlla mo wax ni jàpp ko jam ko yàlla mo wax ni ndax problème mu fukki wala problème mu ya franc mo moo ndogalam la ah gars ndogalam la quoi nga gëmmantu waran na ñew dugg ci auto bi di dawal jël di moytu ab mbam dem dem na le camion bi ñew war sa kaw moxoñe la nit yëpp dee kan mo ci faire ndogul yalla fofu ana yalla fofu C'est un sérieux donc là, lu may tëjee dit, di wax encore une fois les transporteurs les syndicalistes des transports ñu bayyi xel sénégalais yi ñu Sénégal, ñu vraiment grève bu ñuy def ñun sénégalais yi pauvre baadoole yi ñu ngi leen di ñaan ñu teg ci seen tànk wala ñu xool yeneen forme de lutte yuñ def ñu ngi leen koy ñaan ñun sénégalais yi jël politique tegee nele bàyyi xel sénégalais yi sonn nañ lool sénégale yi sonn nañ dàmm nañ tay nañ wallahi la azim man des fois damay sax tiit billahi damay tal sama whatsapp bi man defa dama nan man man soit damay dox ci cimetière wala may dox ci hôpital ko ci gis mag may message ay mère ay pa buñuy wax buñ commencé sen bat rek la na wuy sama nday tay ma dé ñepp ngi ñepp febar ñepp febar sama dom allo waaw moo nga gis keneen ki nag waxal waxal ubina ko waxal nga xamni ne mo tok waxal waxal waxal allo alo ko mola la man def ça opital, mandi man de maa ngi hôpital man de bijel. ngi ya, maa ngi kii bii di doom bi jël mais damay dama nan may man man sa yu ma yeewoo ya, ubbi sama whatsapp bi di déglu rek man ma ngi cimetière maa ngi hôpital maa ngi prison ku nekk ngi ku nekk ngi jooy ñëpp ngi jooy billaay ñëpp ngi joy nga benen di dégluwaat benen audio ba beneen bi wax man de maa ngi nii de hôpital garab te laa kii man damaa feebar nii man kii kenn keneen ki keneen ki jël man de tey amoon naa rendez-vous sax paas sax aw ma ko paas aw ma ko maa ngi nii tëdd sama njaboot ki ay waay moo laa dimbale ñu moo laa jàppale tout le monde souffre en silence tout le monde tout le monde souffre en silence damay déglu damay ragal sax man bu bu ma déggee baat bi sax du ma ko yeggali ndax tiit bi lii bu ma déggee baat bi rek non du ma ko yeggali parce que damay xam fin bi mooy dimbale ma moo laa moo laa faj ma moo laa dimbale ma moo laa dama feebar seen baat yi dama koy dégg seen baat yi rek tiit waaw may mel ni man Sénégal saa yu ma yeewoo damay dox entre cimetière hôpital ak prison damay sax jaaxle te man du ma député du ma ministre du ma maire <laughs> Duma député duma ministre duma maire amu ben représentativité gouvernementale awuma ben Sénégal defuñu ma daara <laughs> defuñu ma seen ministre defuñu ma seen député defuñu ma seen maire defuñu ma daara man ma ñëw engagé wu di xeex ña yamu ci. dañ tay bolé sax di la wax ni problème kii da la wax ni njab no des fois da ngay tit sax billahi wallahi ah mola, laa uh, yu day ni ay feet wala ngi de feet bi de bo ci taxawul duñu lek ginar feet bi ñëpp ñu kii ne xale ngi de fekk seen bay ku bon la benn coureur de jipon ben tan kat bo xamni wala taxawalu kat bo xamni nax xale bu jigen ba tak ko sanni fa teuf teuf teuf birul ko amal ak dom muy daw bayi fa mer ba wala bàyyi fa jànq ba mu mu njaboot gi wër ko benn korite am wala benn tamxare wala benn nangam ñëpp di bëgg ñépp di gi moom mi ngi toog te man bàyyi bàyyiwuma fay doom bàyyiwuma fa nangam nga gis ne moo laa moo laa ah boo ci taxawul dina metti de ah feet bii day billaahi laa wax xale yaa ngi nii damaa jaaxle aw ma sax lu ma leen jëndal nii nekk nii day daajaguma sax reer ay nit yoo xam mosoo leen gis xawoo leen mais ça montre que dëkk bi dafa méttee méttee méttee méttee méttee moom damay tiit ay problème yoo xam ne bu ay ordonnance ay awma lu ma lekk ay awma paas ay besoin yoo xam ne lu ndaw bu ko nguur gi defoon rek ñooñu duñ am problème yooyu quoi ay besoin primitif billaahi ay besoin yu mais tout un problème pour askan yu am tout un problème tant que sénégalais waxuñu lako sa xel du ci dem sa xel du ci dem c'est ça motax nit ki bu nekké ci problème ñeneen ñi dañ ci wara taxaw tant que sénégalais bi jangul ni problème bu dal ki na dal bu kon bu ko dalé jogal tant que sénégalais lolu dara du soti. sénégalais bi mun na ànd ak yow bu problème amul bu problème amee rek mu bàyyi la fa mais loolu c'est un problème aussi ah mun na ànd ak yow bu amul problème mais bu problème amee nan la Macky def ñi mu tëj yëpp Macky Sall la leen tëj six mois lañ def mi ngi leen doog gi génn ñu daal xoola buy tëj ñu ne ayya mu toog nu mu ko neexee jël temps fu mu ko neexee ba heure bu ko neexee rek mu génne gars yi tàcc chaque jour rek ñoo xam ne tëj na leen six mois mais six mois foog mu génne la. koo tëj six mois génne ko ñoom Abdou Karim Gueye quatre mois lañ def ci kaso bi mais ñoom Ousmane Diagne def nañ six mois bu ko Macky Sall génnul loolu code procédure pénale bi code pénal moo ko wax boo tëjee nit six mois di ko di nga ko bàyyi mais ko bàyyi mais loolu nan lañ ci mën a juge nan lañ ci mën a jubile mais sénégalais bi moom boo amee moom jaruloo ko dara moom tànk mi ngi baax mi baax quoi waaw mais yaa fi nekk de mi ngi cool waaw yaa jiite de waaw mi ngi nice parce que y' a pas problème mais bu problème amone rek mu ko taxawé na le taxawé na le mo du ci du ci xeex du ko ci jaral dara du ko jaral dara du ci génn du ci jar gar bakanam du du jaay du ko du ci wax lay kay yamalé ah. wa kiko japp ko ki ko toroxal mom heure bu ko nexé la koy sanni ah. mu delu njabotama ah. te ko amul loi ay askan ñoy taxaw xeex ko pour mu loolu la musaa dugg ci benn kaar foofu laa demee sax musaa dugg ci benn kaar euh, bisu doon dem Saint-Louis quoi doon seeti sama copain ko si xidma bisu Saint-Louis yooyu ñu dugg ci bis bi am fu ñu dem benn gendarme arrêté bis bi xaw ma këyit la ko laaj xaw ma chauffeur bi xaw ma amu ko di ko yeexal foofu di wax gendarme bi jël affaire bi demee ne la chauffeur bi génn jël fa temps gars yi commencé wax <laughs> sénégalais yi waaye c'est pas normal waaye c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal non am benn espèce u man maa ngi toog rek di leen xool am benn espèce u Mollah Morgun bu jóg waaw waaw coow lu bëri chauffeur bi dem joxe xaalis duggaat commencé dawal waa ji commencé benn waa ji teppeeku nekk rek di wax non waaye gendarme yi non ñi dañoo tàngam tàn seen di saaga di saaga rek jàpp gendarme di saaga ay ndey di wax di xotti si kii bi fees dell euh, bi ñëpp di support gel yi di support gars di waa ji yi di nokkos waa ji waa ji di rokkos rek ñu koy nokkos gel di ko rokkos muy nokkos rek di saaga waay to to waay yow ñoo ñëpp buy dem Saint-Louis mi ngi fa ci biir car rapide ba boole ko ci sax wax ah, mi nan waji ji jeune homme doo bàyyi yi ci tabla waaye man man mako wax ah. man mako wax ah. ben espèce la man ma tok toog di leen xool rek waji ne fa di juuxu waaye yow dama ne bu la bu la xolal nga tal kibir la laa nga tal gaz tok ji may mako wax dama ne sax du ay la lañ gendarmerie gaa ne wax na deug no wax na deug nag no wax na deug lii mom ñu dem ba benen arrêt gendarme ben gendarme mo policier ñoo naa gendarme la arrêté waat bis waa ji rocceeku ndànk génn te mu xam naa wax ak moroom gendarme ne am na ku doon saaga fii gendarme ci biir bis bi di ko menacé di wax ñu naa toog rek gendarme bi oh, di woo waa ji jeune homme kaay kaay ah, ah, ñu ne mais lan lan loo may doy waaj waaj ko dañ lay fekk foofu génne la de kaay maa ngi toog rek di xool ñu ñëw rocc waa ji génn ñëpp duggaat mu des waa ji gars ne fa <laughs> ku ne di xool sa morom quoi man maa ngi toog di leen xool de barke rasul ba léegi waxu ba maa ngi toog di leen xool gars yi ne tekk gendarme beneen gendarme nga xam sol tenue gendarme ñëw toog mu ne ah <laughs> mais ah, ma ne koy am na ku ñu bàyyi fii de am na ku ñu bàyyi fii am na ku ñu wàcce fii léegi de mu ne non non non da doon reewantu chauffeur bi de da doon reewantu mi ngi ci giri yi mu ne <laughs> way billahi bis bi kenn waxul kenn kenn nawul duñ dem kenn nawul lañ wacc kenn nawul lañ xex kay bis bi mel ni cimetière tek tek tek te man maa ne chauffeur bi waji wacc euh, ñewugul mune mune ma wajaan ci giri bi ñi tek affaire bi nek calme donc xamna ñi doga xamni waji nek ci xeyna policier wala gendarme wala chef la chauffeur bi départ benn paa paa yooyu noonu nga xam ne yor genre sac diplomatique yooyu ne koj koj koj génne benn benn livre am xaw ma rek commencé waaja o oh, o oh, o oh, o wàcca sabaat wàcca sabaat yow rek nekkoo ci bis bi booy paa bi ne nii waat gëmuñu affaire bi toll leen fenn waaja mi ngay durus de di durus commencé de waaye nag oh oh, oh oh oh oh mu ne nii mu ne ko wàcc sa baat wàcc sa baat yow rek nekkoo fi wàcc na wàcc na wàcc wàcc daaneel daaneel la ko daaneel <laughs> waaw waaw waaw ne nii defar waat livre yi xoolal ubbi waat saag bi ci suuf dugalaat ci lam doon durus ci saa si la ko dugal paa bi toogaat def tekk <laughs> ma ne <laughs> kon lii mooy population bi kon lii daal mooy population bi ba bu ñuy yegg ndar kenn laaj tewul waaja waaja nga ca kaso ba xëy na yóbbu nañ ko ca àll ba lañ ko wàcce mais gars yi ñoom dem nañ noonu <laughs> waa ji dem na ba bëgg dugg Saint-Louis ba wàcce ga ñëpp ñibbi kenn xalaatul fu waa ji di fanaan ñoom ñëpp dem nañ nalaw yi bu ñu bu bis ba wàccee ci euh, a ngaa dugg ci pont ba foofu ci pont Saint-Louis foofu noonu xaw ma euh, station la woon xaw foofu la gaare billaahi wallaahi ñëpp tasaaroo man sama bopp bi di tourmenté wu ma naan waa mais attends mais kon ga kon ñi ñoo newoon ci bis bi di yuuxu bu waa ji di ñii ñoo newoon di di nokkos waa ji muy rokkos ñii la ñoom ñëpp tasaaroo ñii jël taxi ñii ñii ñii jël si leen gars yi tasaaroo wala ci ma yegg ba ndeysaan ma yegg di ko expliquer Kossy quoi Kossy ka taay dama dag gis ngeen nii la yi mel nag man ni mel man Kossy man dama traumatisé wu ma ne ko booy dama billaahi nii lii moo xew ci kaar bi bu may ñëw man ma ah, ma ne ko billaahi te waa ji moom ñu ngi ko téye ca àll ba mais gars yi tasaaroo nañ mais Kousi est-ce que ñi ma nekkaloon ci biir kaar bi ñoom ñi ma nañ nalaw mu a ma ñoo ñooy nalaw ba yàndoor ñoo ñooy nalaw ba gént Kousi ma ñooñu place Abdoulaye foofu la taxaw mais Kousi lu xam nga Kousi lu ma mu ne ma mu ne ko mu ne ma ñooñu dinañ nalaw ba géex nalaw ba gént nalaw ba yàndoor man affaire mi ma def problème man billahi té pourtant ñu ñoo fa nekkon diko ko nak waw mais deug la kay ah lu wax mom lolu mom bëngé bañ bañ bëgg nak waw ñi ku nekk di nokos di gal yi gën ci bëri nak waaye lolu mom deug la non ah, ñii dañoo war a bàyyi lii waaw après no di lek ak ak ñi lek li riba la waa di nekk di saga non man mako ko wax dama ay nangam tan lañ waaye yow man mako ko wax ah. buy xuloog gendarme ba xaw ma fon la mujj xaw xaw est-ce que bàyyi nañ ko xaw waa ji daal foofu la wàcc ndeysaan ndax chauffeur bi moo ma xamal ne ma te devant tout le monde bu fekkoon sax dafa ko dee parce que ci ginnaaw laa nekk chauffeur am na ku des de am na ku des de kon ñëpp yëg nit ñi am na ku des chauffeur bi lu ma ci tegal ma nga ci gëri ba ñun dañuy dem xaar ma mi ngi ci gëri bi da doon reewantu jàpp ko foofu kon kaar bi yëpp ñëpp yëg nañ ni kon waajooju doon wax noonu ñu koy nokkos muy rokkos mi ngi ci gëri bi gars yi tekk te noonu lañ demee tasaaroo seen kër <laughs> nii la affaire yi demee lii lay dal kee seen yoon newu ca tànk dalu leen seen yoon newu ca mun nañ caa wax nag nii muy xumb ñuy wax muy xumb ñuy wax ah oui la même expérience pendant mais vacance il y un mois billahi lii moom Sénégal <laughs> maa ngi ñëw dem sama gars maa leen di bége di leen màggal leen damoo di leen tiitro di leen wax ne à bientôt incha di wax gaa yi daal kuy xeex na nga xeex te yàlla tax rek <laughs> bañ cee xalaat kenn de bu neexee di nga leen gis de ay bu naq tëll boo ko déggee tëll rek bu ko déggee tasaaroo nga naan moom fu nekk nii mun nañ laa wër tëll nga gis taay teppeeku bopp ñuy dugg ci suuf lal yi ñuy dugg ci suuf taabal yi muñ paree tourné génn seen bopp yi la lu xew lu xew ma de tëll laa dégg fekk yow yóbbu nañ la yow gars yi këf nañ la ba yóbbu tëll rek boo ko defee gars yi moom mun nañ la wër ñoom ñëpp di wax ah waaw non non mais non mais mi ngi nice non mi ngi cool mi ngi cool gars yi tëll billaahi duñu xam kuñ doon waxal fu mu ne tëll rek nga gis ñii dugg seen suufu londal ñii seen suufu table ñii daw ba fàtte fa seen dàll ñii yëg ci kaw garab yi xoolal kenn kenn du xool waa ji ñu doon waxal anamu buñ toogee ba affaire ba calme ñoom ñu génn ku ne di yéen wax mais yow ana waaja yow ana ah kan nga koy laaj koy laaj waaja yow mii yow bu nga duggee ci suuf taabal ba waaja mi ngi ca kaw garab ga keneen ngi ca kaw garab ga kaa ngi ci suufu lalam keneen kaa teg teppee ko dugg àll ba <laughs> mais nooy kan ngay laaj léegi fii ña nga ñëpp à part moom mu ñu muñ ne donget yóbbu kan koy laaj fii ñeneen ñëpp dañoo ah, <laughs> laaj njaal njool mi koy laaj Non, non non non, kon non, sama gars non, non, non, non, non, non, rek et puis les euh, syndicalistes des transports routiers du Sénégal ñu alléger affaire yi sénégalais yi dawal très sincèrement ndax avons les conséquences ñu leen koy ñaan ñoom góoru xuma ñu ngi leen koy ñaan ñoom ñoom Alassane ñoom ñëpp ñu ngi leen koy ñaan waaw jaajëf jaajëf one love peace à bientôt incha allah peace and I'm out garama ma sooka sama café jaajëf sama gars yi